قصائدي خلوب الحملات براسي وهي بسر للكملات هاجت قصائدي خلوب الحملات براسي وهي بسر للكملات هاجت قصائدي خلوب الحملات براسي وهي بسر للكملات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 wasit baraay barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall asalaamualeykum yéen mbokk yi rawatina mbokki taalib yi nga xamante ne yéen a ngi bàyyi xel seen télévision bi di Qaça'id TV di la première chaîne thématique sur les xasaayid de Xaadim Rasul ñoo ngi sant sunu borom subhanahu wa taala di julli si sayduna muhammad rasulullah sangub sang yi di ñaan tey ñaanal tey siyaar tey siyaaraat tey siyaare Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké moom sëñ Bassirou Khadim Rasoul mu yàgg fi lool te ànd ak wér lañ koy ñaanalaat di siyaar di siyaaraat tey siyaaraat sëñ Amdi Moustapha Fall moom sëriñ Mouhamadou Mbend Fall mi nga xam ne moo fi toog jotaayu maam Cheikh Ibrahima Fall noonu lañ koy ñaanal njabootu sëriñ bi mboolem kilifa diine yi ak mboolem kilifa aada yi yenn mbokk taalibe yi topp liggéey bi saa su nekk si waxtu bi si seen émission mbégum xasida yi nga xam ni dañu koy ànd ak yéen si altine àllarba ak ajuma ginnaaw bu ñu julee tàkkusaan ba noppi dañu am mbégte rek di jàkkaarloo ak yéen wante dañuy amaan mbégte ngeen di toog di gis tey bég si li ñuy def moo di bégal leen si lii nga xamante ne moo de xasida yi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul yi ñu ngi leen di siyaaree ñëpp di leen jaajëfalaat tey yeesalaat suñu këllër ak yéen tey yeesalaat suñu jaayante tey yeesalaat suñu bëgg ak yéen tey yeesalaat ànd bi nga xamante ne ànd nañ ko si liggéey Sëñ Tuubaa bi rawatina seen biir émission mbégum xasida yi mbokk yi xam ngeen ne semaine bi ñu nekk ak bi si topp ak li si kanam yëpp ay événement rek la ndax bi si jiitu moo di ngan bi nga xamante ne Serigne Touba mooy ñëwaat dimbali jaam ñi ndegam sax mu ngi dakaar wante mooy ñëwaat sunu boor yi dimbaliwaat jaam ñi saafarawaat jàngoro yi moo fas yéene teew jumaay Masaalikul Jinaan le 27 le 28 ak le 29 muy ngana ñetti fan xam naa foofee dama fay teg sama loxo. daal di dem régi incha allah ñu teewlu benn daaju xasida ñu dikkaat fii ñu wéy ak yéen si nganu Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké Bachir waa régi bismillah ba la الوسيل jërëjëf waa Régie jërë ngeen jëf mbokk taalibe yi jërëjëfati Serigne Abdoulahi Ndoye mi nga xamante ne euh, tàmm ngeen jégo gi seen mission boo am solo bi nga xam mooy ndéggaane Serigne bi si téere Serigne bi yu bari yi nga xamante ne euh, mu ngi doon joxe xam-xamam di ñu dimbali di ñu fàttali ndax xam ngeen ne moom euh, taalibe Serigne a Mbacké Bachir la bokk ci ñi nga xamante ne dañuy saytu kër ga bokk ci ñi nga xamante ne Serigne Mountakha Mbacké Bachir daf leen jox nopp ak bopp mu bokk ci daara adabil mardiya ñu ngi koy siyaar baax di siyaar sëñ Yuusufal Xayri mi nga xamante ne liggéey Serigne Mountakha yu bari sëñ bi seen loxo la ko teg muy daara adabil mardiya mardiya day jàmbaar loolu liggéey bi ñu ngi leen di bu baax a baax di siyaaraat mbooloo yi nga xam dañoo ajur ci liggéey sëñ Tuubaa bi rawatina ñi nga xamante ne ay daara lañu faree ci liggéey sëñ Mountakha bi ñi nga xam dañoo ànd ak Serigne Mountakha Mbacké Bachir lu jiitu mu nekk xalifa Serigne Touba ba ni mu ko doonee kon bokk ñu ngi ñaanala Serigne Mountakha Mbacké Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak ba liggéey bi nga xamante ne su mën a ko si muy liggéey bi nga xamante ne euh, buñ ko lim fi dañuy fanaan muy chantier lu mel ni stade Mbacké bi lu mel ni université bi ak yeneen yi nga xamante ne xam nañ ko ñu ngi ñaan suñu borom mu àgg ba ñu jox ko caabi bi ba mu nekk ndamal lislaam kon ni Masaalikul Jinaan nekk woon ndamal lislaam ndax xam ngeen ni euh, sëriñ bi yàgg na ñëw Dakar waaye bu ñëwee ndakaar ay ngan si ay taalibe lay dem wala mu dem fi nga xam moo di kër si Moussa Basiru bi nekk amoo waaye xam ngeen sëriñ bi ba mu tijjee Masaalikul Jinaan 2019 si la gëj ñëw ndakaar tijjiwaat leneen lu ñu mel te xam ngeen ñëw bi nga xamante ne. Ah, ñëwoon na ko 2019 lu bari dafa yeesoon si réew mi ndax xam ngeen si la juboo bi nga xamante ne moo son excellence le président Macky sàll si loo juboo woon ak ah, ki nga xamante ne moo di Abdoulaye Wade ñu ngi ko ñaanal mu yàgg fi lool taan ak wér si ah, la suñu borom dogal ñu gracié woon xalifa sàll ak yu bari yoo xamante ne buñ ko doon tudd fii lañuy fanaan te lépp ñëw Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké Bachir moo ko sababoon wante ñoom bi tamit xam ngeen ne sëriñ bi si guddi àjjuma lañ ko jëloon Dakar tàbbal ko si néeg néeg boobu ay ràbb ak jam-jam mu histoire boo xam gudd na buñ koy tudd tamit duñ fi jóg wante si bisub ajuma tamit lay ñëwaat dimbalaat jaam yi jullee fii si Masaalikul Jinaan ndax xam ngeen sëriñ bi moment bi muy ñëw moment bu yéeme la ndax xam ngeen dëkk bi jamono yi doy na waar dëkk bi yéeme na dëkk bi metti na dëkk bi lëndëm na ndax gis ngeen bës bu yàlla sàkk depuis deux semaines ay agression ak i kese moo tax sëriñ bi fi mu nar a ñëwee moo baax ndax xam ngeen sëñ Tuubaa fépp mu nekk rek ku dul nit sax képp koo xam da ngaa yor bàkkan du noy sax da nga yëg ne xalifa sëñ Tuubaa mu ngi foofu kon boog ñëw sëñ Muntaxa bi mbokk yi nañ ci xel bu dal nañ ci njot bu rafet te it ñaan suñu borom ñoom bi fànk lépp loo xamante ne ay musiba la yoo xam ne dafay am jamono yi mooy agression yi ak rey yu métti yi nga xamante ni ñu ngi koy dégg ñu koy dégg suñu xol du si neex ñu si am lu si metti wante tamit foofu lañuy ñuy interpeller le ministre de l'intérieur mi nga xamante ne moo yor suñu kaaraange naam mënuñ jël policier bu nekk mu ottu kaaraange benn civil mënta nekk wante ministre de l'intérieur dañ koy interpeller rek mu yokkaat kaaraange gi ndax amaana sax booy euh, dox sax sa xel du dal rawatina ngay dox am loo yor kon bokk ñu ngi ñaan suñu borom si barkeb ñëw bi nga xamante ne Serigne Mountakha Mbacké Bachir euh, mu ngi fi ñëw mu fànk lépp li nga xamante ne sénégalais yi ñu ngi koy jooy mu fànk lépp li nga xam waajur yi ñu ngi koy jooy muy rey gu metti gi agression yi ak metti du dëkk bi yàlla nga nag Serigne Mountakha bi fànk loolee ba bu ñibbee rek lépp li nga xamante ne ay tawfeex la woon Sénégal baaxoo du ko am yàlla na ko ñoom bi def si barkeb Serigne Touba Khadim Rasoul si barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall si barkeb xaside yi mbokk yi noonu képp la ñuy wéegéen seen émission mbégum xaside yi ñu delluwaat régime incha allah teewlu beneen daaju xaside dikkaat fi wéy ak yéen waa régie bismillah jërëjëf waa régi jërëjëfati waa daara ahlul nan ñu ngi siyaar bu baax sëñ Mor Sall sëñ Thierno ak mbokki taalibe yi nga xamante ne ñoom ngang kuréel bi walla ñu ngi siyaaraat waa daara Nerul Maram bu lycée Paya ndax xam ngeen ne samedi gëla wees moo nekkoon seen bisub can yi nga xamante ne at bu jot seen télévision bii di xasaay TV moo def couverture bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax si ànd bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax si yëg gi ñu ngi leen di sant bu baax a baax si toppatoo gi wala ñu ngi siyaar bu baax a baax sëñ xayri sëñ xayri ñu ngi koy siyaar bu baax sëñ Abdoulaye Fati ñu ngi koy siyaar bu baax a baax ak Serigne Joxaane mi nga xamante ne mooy chargé de com bi ñu ngi siyaare euh, képp koo xam membre daara di nga rek ñu ngi lay siyaare di yeesalaat suñu kóllëre ak yéen di ñaan suñu borom bis bi nga xamante ne àndoon nañ ko ak yéen keroog ñu fekkee ko ay ati te ñu yàgg ko ànd si barkeb sëriñ bi si barkeb xaside yi mbokk yi ñu nga amaan mbégte rek di jaajëfal ñëpp di santaat bu baax di dëggal rek si assur bu am solo boobee ñu ngi si siyaat bu baax soxna ummi soxna ummi njaay nga xamante ne suñu sër la suñu xarit waaye di suñu xuloo waale ndax léeg moom dañu xuloo léeg dañuy juboo wante démb si guddi moom dañoo xuloo woon ba sànq suba lañ xuloo ba léegi nii rek ñu ngi xuloowaat <laughs> maa ngi koy siyaar bu baax sono mi di ko déggee bu baax a baax di ko nemmeeku di ko jox wàcc waayam wane maa ngi siyaar bu baax a baax waajuram bu jigéen di suñu bàjjen ak uh, waa këram ay rakam ay magam ñu ngi leen di siyaaraat bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ñu ngi siyaar bu baax soxna Ndey Jóob depuis Italie ñu ngi koy nuyu di ko wax namm nañ ko di siyaare seen xaalim Jóob rakkam ak soxna Musli suñu xarit ak suñu yaay Faat Jóob ak seen waajur góor di siyaare Touba téléviseur gépp di fàttaliwaat mbokk taalibe yi euh, le 8 juin incha allah mooy nekk bis bi nga xamante ne mooy Bambo Day Italie ndax xam ngeen Bambo Day boobu ki ñuy wax Fawzino Gatta nekkoon gouverneur Brescia euh, moo nangul sëñ Murtala sëñ Murtala Mbàkke bis boobee ba bis boobee sax moo jur Bamba Day bi am États-Unis at bu jot kon boog ñu ngi si siyaare waa Italie gépp rawatina waa Brescia nga xam ne euh, bis boobu euh, amul liggéey férié la Brescia wante journée chômée la et payé la te lépp Serigne Touba Xaadim Rasul moo ko waral ñu ngi siyaar bu baax a baax di ñaanal Serigne Murtala Mbàkke Xaadim Rasul suñu borom yokk leen taw ñu si barkeem waaye ñu ngi siyaare mbokki Italie gépp di siyaare Baye Fall yëpp di siyaare ñoom Sëñ Abdou sekk ak soxnaam ak samay jarbaat soxna Aram ak soxna maam Seydou Ndiaye ñu ngi leen di siyaaraat bu baax Serigne Ousmane Ndiaye Nourou Daara ni ñu ngi koy nuyu bu baax a baax wante ñu ngi nuyu bu baax a baax Sëñ Amath Bousso mi nga xam ne seen Sëñ Abdou bii nga xam ne suba la incha allah sa Touba moom daa am ndigal def ko fii nga xamante ne moo di benteel waagu ñaay si kopp bi ñu ngi si woo ñëpp di ko fàttaliwaat mbokk taalibe yi nga xamante ne ñoo nekk si daayira yooyu di ko fàttaliwaat kilifa yi di ko fàttaliwaat am di jàmm yi di ko fàttali képp koo xamante ne bëggoon ngaa dem Touba wan jot gi matew la ko rek ñëwal foofu ñu santandoo Serigne Touba bokk liggéeyal Serigne Touba bokk ñaanal Serigne Abdoulaye Laxat si bisam bu tedd bi nga xamante ne mooy màggalam ñu ngi siy siyaar bu baax a baax sëñ Sidi Mbacke mi nga xamante ne moo toog si buntu kër sëñ Abdoulaye Laxat waaye ñu ngi siy siyaar bu baax a baax sëñ Mahamadan Mbacke mi nga xamante ne mooy porte-parole kër gi waaye fàttoo ñu soxna Kiné bindu sëñ Abdoulaye Laxat soxna Xali Mbacke bindu sëñ Abdoulaye Laxat mi nga xamante ne sëriñ Sey Mbacke mi nga xam moo toog si buntu kër sëñ son bi moo koy jël waaye ñu ngi siyaar bu baax a baax sëñ Abdou Samane Mbacke moom sëñ bi mi nga xamante ne ku ne xam na ko. ndax mun nañ wax moom mooy làmmiñu yoon bi suñu waxee mooy làmmiñu yoon bi moom ku xam yoon bi la tey lépp lu muy wax ci yoon bi lu leer la te it moom rek mu mun a am fu mu yóbbu sëñ Muntaxa Mbàkke Xaadimu Rasuul kon mbokk ñu ngi siyaaral sëñ Abdou Samad bu baax di siyaaral sëñ Amsala Azadul Xadim ñu ngi koy siyaar bu baax di siyaare mbokki taalibe yépp di am mbégte lool di jano génn si di leen bégal li nga xamante ne moo di kennub sëriñ bi di xasida yi mbokk yi dañuy wéeg yéen rek ci animation bi ndax xam ngeen gan gi àjjuma samedi dimanche la moo tax tey dañuy ànd ak yéen di bëggal leen rek seen émission mbëggum xasida yi wàccaayu nganuk Sëriñ Muntaxa Mbàkke Xaadimu Rasuul waa régi bismillah bi kawni laaxini wa kawni loo bi bi jaay xayra kawni kulli muslimin wa muslima وقد كفاني الإله سلما نفى الكريم ضرري ومرضي وكانني بأبد بقردي قلبي قد صفى وجسمي سيعا ولنصان صافيا مسعا ثماني غردا بيان لي تبين من لا يخفى علي سيد جادني بأعفى واجعلي أجر بقدر العصيم فيما بي أببت من قر النصيم أذكره سر المعبين محا وبالنبي ليمنا يا جماعة قلبي بركة بفضله المجلي نويت كوني ساكنا بما حاب لأنه قلب به ولا عاب على وسيلتي وجاحد النتي محمد خير البرايا جنتي ما لا يعود من صلاة وسلام الدين هذا أفضل الكلام تعظيم من ما عنده لا يفقد على الذين سنا يحملون عديتي إلى جماد صانيا من المعلم عبد مقانيا من رجب الى الجاس الحجاج المقدم المرفوع أزكى سلام من رباني بالمنى على الذي كون له محكم منايا للمصطفى وجهت أفكار السنا وبامتداني عصا عن سنا للمصطفى وجهت أفكار السنا مع سلام يفارق المرأة على تراصى جلبي ليجرب تودعت عني مضتني وقصياص المني ملكتني تركتني تمليكا أنا تحريم أنا ملوكا يقودني كن فيكون منك ثاني بأمن قد رديت عنك أتني القرآن والعلوم نبعت من جول والحليما سعدني النقر بخير الدري وجعتني خيرا بخير شري سعدني المسونة المعررة قبلت مني دررا مقررا هديتني بذكرك الحكيما وجعتني بأرض تقيما مني تقبلت بقدرك العظيم بحق من أعطيته در النسيم سلمتني من كل سوء وبلاء فذرت مطلقا وخير كفلا وجعت لي إله مالك ملي مصغنيا عن سلوك وصلوك آويتني بالمحبة إليك قلا وعبا أبدا لديك وجعت كلي للكريم والجميل ولودوا لربي عن حلامي أكرمني الكريم نعم النافع وعبد النافع وهو الرافع تلي مباح وولي ولطيف على الذي كرمه بي يطوب تلي jërëjëf waa Régis jërëjëfati Serigne Abo Fall mi nga xamante ne Euh, vidéo bi keroog si bisub euh, waa daara Nellu Maram bu lycée LPR la woon ndeysaan daaj bi ba mu koy jàng sax moom am na loo xamante ni jot na ko si dal ndax daaj bi daa mu ñu yóbbu lool sëñ Abo sama doom baay bi ñu ngi koy ñaanal suñu borom baat bi wér ba li mu namm liggéey sëñ Tuubaa si xaside yi mu àgg te mu àggale ko sagom si barkeb sëriñ bi yal na ko si yal na ko si sëriñ bi fekk ndax daaj bi moom am na fu mu ñu yóbbu am na fu mu bu baax a baax a baax a baax ñu ngi koy sant bu baax di ko jaajëfal di santaat ñëpp di jaajëfal ñëpp mbokk yi euh, amoon mbégte rek mbokk yi doon jàkkaarloo ak yéen doon leen bégal seen émission bii nga xamante ni moo di mbégum xasida yi nga xam ne saa su nekk dañu am mbégte dañu am tawféex dañu am bànneex di jàkkaarloo ak yéen di leen bégal si li nga xamante ni moo di lenn si liggéey sëriñ bi moo ay mbindam nga xam ne euh, moom moo wax karamati xatu yadi fi xidmatil mu ayadi wa kaanali bil afyadi allahumma lil karami samay mbind loxo képp mooy samay kiraama kon boog mbokk yi mbind loxam yooyee nañu jaral nañu ko bëgg nañu ko fonk nañ ko am fuñ ko teg nañu gënal lépp bu weesu alxuraan nañu mbindum loxom yooyu gënal nañ ko sellal nañ koy jàng te yàlla rek a tax buñ ci wut lenn ni àdduna nañ ci dàq sëriñ bi ndax buñ ci dàqee sëriñ bi kat sëñ bi bu ñu fayee danañ xam lii kat jar na ko wala buñ ci dàq lenn yi àdduna ndax oto yi rafet xaalis yu bari soxna yi rafet loolu du payub sëriñ bi ndax loolee moo gën a tuuti si payub sëriñ bi kon boog nañu xam ne sëriñ bi liggéeyal ko ay payam jéggi na yooyu mu tudd xas dégg nañ si nekk nañ si sax nuñ ko bëgg nañ ko sellal ndax pour ñun la kon boog ñu ngi sant ñëpp di jaajëfal ñëpp di santaat baax Serigne Moussa Thiam mi nga xamante ne lépp loo leen gis rek décor bu rafet bi mooy background bi sama ginnaaw éclairage bi taar gi lépp moom la ñu ngi sàkku te dagaan ngeen ñaanal ko rek ndax ni ngeen ma gisee ngeen di dégg samay kàddu di bég ni ngeen ma gisee ngeen di gis image yi di gis samay mouvement di am lu leen neex ni ngeen gisee làmp yi leeral ma donte leeru ma ni ngeen ma gisee làmp yi tax ma xorom donte xorom ma lépp Serigne Moussa Thiam la kon mbokk sàkku nañu yelwaan naa dagaan naa leen ngeen ñaanal ma ko bu baax a baax a baax a baax utu matal Moustapha an kulli mafsalatin waltara min xalxaya man jaddahum badaa utu matal Moustapha amma yajjiwar lahum si wali baadaati wax si moom min ashara jërë ngeen jëf jaa ngeen jëfati الباقي الولي واللطيف على النبي المصطفى الهطوفي على الذي من الصلاة والسلام له من الله صلاة وسلام وجعت للمختار كل يوم قدم أبداع عسى لومي إلى النبي وجعت كل ليل قدم أبداع عجانا ليلي رضي عني من له قائدي ومنطقي وبه له قائدي جبت الذي قراي لي عتابا وغاد لي ملاي لي عتابا وجعلي ما لا يراه خيري معجزة تقى لحسن خيري إلي قاد الله في الدارين سيان بي سيرني جاريني نظرني الناحي نفحا فاخا وغن مع اليد نفاقا أكرمني الكريم والمكرم بجاي من سمته المكرم لي قاد يمن المصطفى ما قاد بلا أذى مطجيا فالقاد لي قاد ما يكون لسرورا توجهت ونلت سور